waxumaay waxum mort naturel xanaa mort hmm. fi kan laa gën a miin. ñëw fekk paase mu toog na kandak ma ne <laughs> mais dinañ laajte sax lu xew. lan moo xew. est bu ma xookoo. wala pompe à gaz wala dóoroo wala dara wala nangam. Hmm. ça veut dire parfois li ngay expliquer nit ñi. Hmm. na nekk lu raisonnable. Ah. plausible. lu plausible nga xam ne li ko ko dégg xam. xel mën a nangu. parce bitim réew mag bu faatu. même ah, am naa sama benn xarit maa ngi koy nuyu de passage. Hmm. dañu toog guddi yaayam mu ne tàggu yaayam ba pare. ndeysaan bi mu tàgg yaayam après ci guddi gi ñu woo ko yaayam ñu yóbbu ko dispensaire de mu ne yaay ji hmm. faatu te yaay ji mag la. mais bi ñu ñëwee dañ ne leen duñ leen ko jox parce que dañ ko yóbbuwaat CTO imagine mu jógee Pikine ñu yóbbuwaat ko CTO après mu ñëw ne ma dañu war autopsie pour xam lan la sagatuma laak euh, ndaw nag beneen bi nañ ko wax hmm. fan yële ngor comme comme Israël ak tëju gendarmerie teel teel y avait même conflit d'intérêt parce que gendarmerie moom moo soxla terrain mais gendarmerie moo nekk sur le théâtre d'opération mm. je crois que jour boobu Bachir yaa ma leeral sax bi ñu toogee maa ci plateau ma la man dama remarqué sax dafa am zone de compétence yoo xam ni police lañ ko réserver mais les zones urbaines mais sooy xool euh, village yi la ñu jàppee li ñu jàppoon village tey Ngor Wakaam Caaroy euh, yooyu yëpp gendarmerie Yara gendarmerie noonu la ñu organisé wu donc pour man boo gisee police danga war a am benn pressentiment bi sécurité. Hmm. man ci gédoo bi laa bëgg. barki dem dama toog li may wax sama gars yi xam na ko dama toog jékki-jékki ñu yuuxoo benn booy sàccee ñu yuuxoo booy bi sàccee gars yi dàq ju ko xam nga Pikine bu ñu la yuuxoo am avion bi sax xalaat mbir yi day jolli yati dolli teel teel ñu jàpp booy bi takkal ko ay lam ma ñëw bi ma gisee booy mu identifié ko ma leen kii man kii du sàcc kii su ma gis ñu sàcc. policier bi non non non jàppee wuñ ko sàcc quoi leneen lañ ko jàppee ma ne ko bu fekkee leneen nga ko jàppee dama nga jàpp ko mais bu ko yuuxoo sàccee hmm. yaa ngi koy lor. après recoupement. waaw waaw ndekete fekk nañ soupçonné nañ ko doon affaire yooyu mais comme daw nañ nañ wut bu ko jàppee sàcc hmm. loolu beneen ñaata yoon lañ fi am lu jëm ci wàllu bavure policière c'est-à-dire le débat est fort c'est-à-dire ci lii la gendarmerie et la police elle peut pas avoir la peau aussi lisse que ça hmm. parce que man man lu ma gën laay wax parce que dañu nekk ci réew boo xam ne dañu banaliser sax bakkan ko chaque jour damay joxe exemple grande gueule Sénégal final coupe du Sénégal la xaw ma lan stade Demba Diop miir bi màbb ah fukki bakkan rot après quelques supporters ñu pare ci on n'a pas pris non woowuñu organisateur u match bi muy la Ligue sénégalaise loolu 2017 la directeur stade bi woowuñu ko promoteur bi nga xam mooy gagné marché stade yi ah, tabax ko woowuñu ko ah, ah. waa léegi des na beneen xaara des na beneen numéro 9 bi ñu fi génnee fii muy taxaw ci wetu oto hmm. alkaat yi ba tey numéro maanaam numéro 9 numéro 9 fu mu nekk am na ko koy paas ba tey mbubu bu xonq ma ne ba tey mënuñu la wax fii lañ ko déterminer wala tel donc ça su fekkee ne dañu am sentiment d'impunité sentiment d'injustice et puis beneen bi nañ ko wax hmm. moi je dis suñu police su Sénégal ak gendarmerie si am. yow sénégalais buggul sax dugg police. quarante bu la waxee ñu bëri xam nga am quarante bu la waxee dañ ko délocaliser. parce que même dans même daa l'accueil. boo ñëwee luñ baat bi lay njëkk on a dañu am benn culture coloniale quoi. boo hmm. xamante ni dafa nekk au-dessus de tout le monde su ñuy wax ak yow dégage lañ lay wax ay bouse ay et cetera. même nga gis policier mu gentil sax exception la parfois nga gis vidéo ñu gis policier bu pousse benn oto ñu ne way nañ ko wane lii moom dafa rafet alors que loolu moo war a nekk norme bi donc pour man yu mel nii euh, c'est pas au procureur de me dire parce que pour man procureur dafa am rôle am nañu dem ca cappaandaw ba ca buuba moo xam bu dee gendarmerie la moo xam bu dee police ñu def enquête bu indépendante mhm. bu fekkee am na ñoo xam ne si seen comportement parce que dafa am droit même booy contrôler identité nit am na ay xam ne am hmm. Hmm. fii ku fi dem stade mos nañ laa ngàtt wala ñu dóor na mbéy waaw ah, dëgg dëgg loolu yàlla dogal nag réew maa ngi nii nag koy xam naa metti la waaw euh, man léegi Sénégal j'ai comme l'impression que Centrafrique lañ ne wala RDC Congo waaw hmm. parce que li fi commencé xew ci depuis mars deux mille vingt et hmm. dafa commencé jéggi dayoo dafa doy waar mais on tue comme pas possible léegi hmm. on tue carrément ni quoi mu nekk lu léegi grawul quoi anyway quoi les Séné le Sénégalais euh, est un picc ramatu quoi da ngay yor sa laspère doxantu gis am envie tirer tirer mu dee et puis nga bàyyi noonu quoi pour man problème bi loolu yéen ni ngeen di wax dafa sori ay autopsie ay ñotopsie jàppal bàyyil dafa sori et puis le procureur mooy ki fi génnoon taxaw wax ñu di n'importe quoi moom la c'est ce même procureur moo génnaat taxawaat waxaat ñu lii ah, c'est c'est le même procureur ban procureur la Karim Karim mm. Karim moo taxawoon tegal ñu ay film boo xamante ni nañu kii mooy le le le après Karim moo ñëwaat wax ñu lii sérieusement il ne faut pas sax ñuy attardé wu di ñuy euh, attardé wu di wax sax ci way procureur bi ba mu ko waxee ba mu ko waxul mais en tout cas lenn moom maa ngi leen koy xamal gis nga ces postes yooyu nga xamante ni euh, nomination la ay doomu jàmbur di faatu fa yàllaaw ñuy xam ni lii moo leen di rey hmm. ñu naan dañuy dëgg bal bi ñoom ñépp nañu xaar ni seen doom dinañ ci jaar hmm. wallahi azimul karim gis nga ñii yàlla kese ñuy àtteeg ñoom sawaay li xew ki dëkk bi dafa ne fang dang on nous tue on tue nos enfants on tue nos frères on tue nos sœurs rey bi léegi dafa mel ni loo xamante ni lu ñàkk xorom la le boy Nayel refus d'obtempérer ñu ray ko qu'est-ce qui s'est passé en France hmm. bakkanu français moo gën bakkanu Sénégal jeune de 16 ans ngeen dégg rey yi kuy jaar ci uskuteur ñu ne ko mbit ci benn fiil mu faatu fa yàllaaw kuy dem di dugg ci gaal naan day dem barsàq ñu tiire ko fetal ngeen gis ko fi di ko dégg tous les jours dañ ko filé ñu filé waaw ngeen dégg la euh, waaja waaja waaji fi euh, waajooju nu mu tuddati euh, policier yi mbëkkoon waa ji policier yi mbëkkoon te mu faatu ci trottoir bi damay fàtt nu mu tuddati hmm. yu baree baree bari yéen koy dégg di ko gis police yi di demee gel bu doy waa gendarme yi waxu na hmm. man ce que man li ma déglu waa ji wax man loolu laa gëm ah son oncle son gendarme bi nekk Wakaam commandant bi nee na abus de pouvoir excès de gel lay demee ak ñoom loolu la oncle bi wax nee na elle est venue euh, euh, vérification d'identité ndaw si xaw ma lan la ko wax mu ne ko doomu xaraam ndaw si ne ko suma yaay jurul doomu xaraam ñu baal ñu ci. non non non non non non bu ñu demee ba suñu ay force de défense et de sécurité di ñu saaga ndey te loolu yëpp xam nañ ni ñoom dañuy saaga waa te Cheikh Omar Talla wax na ko léegi ils sont insolents dañuy saaga ay dégage ay di la saaga yu kenn xamul. Hmm. ils ne respectent pas les civils. je ne dis pas que c'est tout le monde. Ouais. mais def ci bëri ñoo xamante ni. Hmm. jeune la ñuy demee ak lu kenn xamul amuñu benn respect ci citoyen yi. et c'est quoi ces histoires. te lii dañ koy bàyyi nii mu dem ba di continuer tous les jours on nous tue après ñu ñëw def benn autopsie. Hmm. fen ñu fen ñu tooy xepp naa ñu mort naturel il faut quand même il ne faut pas insulter l'intelligence des Sénégalais ba pare beneen bi gars yëpp wax nañ ko. ils sont habitués à nous mentir. ba nga xamante ni lépp luñ waxati mënatuñ ko gëm. Hmm. amul lenn lu ci crédit bi seen wax ak ak ak force yi ñoo yem. nag ñu jéggal ma ci ci ci kii hmm. mais en tout cas basta doy na. ça suffit qu'ils arrêtent de nous tuer parce que lii bés bu demee ba mujj ba yegg ci fayontoo dina metti dina doy waar di defaat ab encore un appel sur nos forces de défense et de sécurité ñun ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay bu ñu simmee tenue yi ñooy toggandoo ci kër yi autour di bool di dànqandoo suñu suñu suñuy cereek suñuy maafeek yooyu bu ñu solee tenue bi nañu jàpp ni être humain bi bi bi bi génnee ci kër bi. sol tenue bi kese moo ñu différencier ak ñoom ñu bàyyi comportement bi ñuy am ak les civils. Hmm. man un gendarme dogale na ma fi temps yële ci euh, weeru koor gi. ci croisement Ndiosmone effectivement dama doon génn troisième position après ma duggaat. gendarme bi moo motariste bi dogaale ma. Hmm. bi ma dogaalee di ma se di ma taxawloo ci digg tali bi ma ne ko du ma taxaw ci digg tali bi muy insister ma ne ko du ma taxaw ci digg tali bi j'ai pris le temps de bien garer ma taxaw il est venu ne ma sa permis de conduire ma ne ko lu xew mu ne ma non sa permis de conduire ma ne ko mais lu xew mu ne ma non jox ma sa permis de conduire d'abord ñu soog a waxtaan ci lan nga def ban infraction nga def. ma ne ko d'accord ma jox ko sama permis de conduire xam nga lan la gendarme bi def. fes dam sàcc suma permis de conduire c'est un motariste. il a volé mon permis de conduire ma seet ko ci brigade de gendarme Sénégal yëpp ñu ne gisuñu ko kon ce gendarme il l'a volé parce que bu ko déposé woon dinaa ko gis. volé pour la dafa la maa ngi ci suma oto maa ngi ci suma oto. mu ngi ci motoom. mu arrêté ma ma taxaw. mu ne ma naa ko abal naa ko jox permis bi. j'ai insisté mu ne ma non jox ma permis bi. bon avec tout les respect ak tenue beeg yooyu je suis jox ko permis bi. mu continué mu ne fif dugal cinquième sàcc suma permis ba nii jotoon li tax ma koy wax fii parce que xaw ma lan la ci jublu ak luñ ci jublu. Hmm. ils ont volé mon permis de conduire dama dem def euh, certificat de perte amaat beneen permis de conduire. ah bu ñu demee ba mooy li ñu wax. depuis combien dem bi gën a jege. dem naa ci gendarmerie yu Sénégal yëpp. déclaré ko depuis weeru koor ga weeru koor ga ma doon dem Kaolack. voilà j'étais avec deux journalistes. Ndiab bi elle est témoin ak euh, euh, kii le le le Samba Thiam les Échos. maag ñoo ma ànd ñuy dem Kaolack ci benn événement. donc li tax ma koy wax fii parce que kenn xamul ëllëg ñoom lan la ñu nar quoi ah ah, lu tax ñu sàcc suma perte bon ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ñu ngi koy dund ak ñoom mais par contre am na ci ñu courtois am na ci ñu correct am na ci ñu nite mm, mm. am na ci ñu humain am na ci ñu xam vraiment le sens de de tenue bi ñu sol mm. jaajëf Thierno famille bi giifut malgré ma ne famille bi giifut malgré li procureur la wax ubbi nañ fi ay brèche ay yoon du benn yoon